débat bi dama bëgg yéen ñëpp ñu d'accord ni Sénégal góor jigéen du fi am buñ koy daganal du fi am waaye ñu yëkkati wax ji waxtu wiñ ko yëkkatee du waxtu jub pour wax lu sérieux parce que wax bi su fekkente ni bi charia moo ko waral diine lislaam moo ko waral wattu tere yàlla ci alxuraan moo ko waral ma ne waruñu ci woon jël benn dong dañu waroon jël góor jigéen jël naanum sàngara jël aubergine ñu ubbi góor ak jigéen da ca tëddante di wax loolu waxit ñuy kàtt ci dëkk bi ak ñuy sàcc te charia ni ku sàcc nañ dagg loxo ku njaaloonu jàpp la nañ la sànni ay xeer ba nga dee waaw dañuy wax nit ñi dañ leen di laaj ñoom ndax république islamique la ñu bëgg wala déet su fekkee république islamique la ñu bëgg nañ ko wax sénégalais yi mu leer seen bopp su fekkee bëgguñu république islamique nekk ci république laïque nañu d'accord ni laïcité bi ñoom ñoo ko bëggal seen bopp man li nga xam ne moo ma ci jaaxal mooy ñoom li ñuy seet bu dee diine la li diine tere dafa bari te ñu tànn ci benn dong jigéen ñaa ngi njaalo ñu officialiser ko ndax ay auberge la ñu dugg jàpp sa moroomu góor ànd ak jigéen dugg ci biir auberge fanaan fa xëy yeewu fa dafa ñetti fan waa du ñu wax loolu kon nañu bàyyi diine ak yàlla yàlla moo ni kuy def lu baax di nga taseeg man kuy def lu bon da nga taseeg man te yàlla kenn du mucc ci moom waaw du ñu bàyyi yàlla fajal boppam waaye criminalisé mooy buñ ci jàppee diw nañ ko rey bu ci jàppee diw nañ daanu rey ñoo xam ne sax du ñu ñoom kon ndax xool nit bañ ko Sénégal dangay xool nit jubóo ak moom wala bokku leen parti wala bokku leen fu ngeen jëmee mu ne la ah, kii góor jigéen la tuumaal la tuuma loolu nag ku ci am seede charia nee na jigéen ju njaaloo ñeenti seede la koy sariya di jàppe ñeent ñu daje benn ñaar ñett ñeent ñoom ñett ñoom ñeent ñëpp dajeendoo fekkeendoo ko gisandoo ko te ñu fu ñu jóge kon loolu laa bon lu ma ciy wax asalaamaaleykum wa rahmatullah